bi ko déggee bett na ma wante dee moom ci mbetteel lay ñëw ndax suñu borom du tàggu kenn ndax ragalul kenn ba di ko tàggu ba pare tamit euh, biñ ko déggee tamit naqarul nañ ko waaye mujj dellu ci suñu borom xam ne moo ñu fi indi te moo ñu fi jëlee te li mu wax du dañ ndax euh, dégg naa sëñ Abdou Khader dafa am ku mu àndaloo dox ci armeel yi ba mu yàgg nee na mu ne kul nafsun saay xatil mawti gi yàlla wax ci alxuraan ndax gëm ngeen ko ñu ne ko waa mu ne lii moo gën a wér ndax ñu bu ko waxoon te defu ko du wér waaye lii ko gën a wér kon suñu borom moom bu defee dara rek daa am lu tax mu def ko te it eh, jàmm bi xam xelam du àgg ci lu tax suñu borom def ko waye nag yàlla na ko yàlla yërëm te xaaru ko àjjana sëñ Saliou mi nga xam ne nag moo nekkoon léppam maanaam defe naa ne daal tey ji lay xam kan mooy sëriñ Saliou ndax eh, sëñ Saliou moom daan wax rus naa jamono te kenn mu dem sawar waaw rawatina ko xam ne gis nañ mu jaxasoo mu jaxasoo yoo xam ne du lu ñuy waxantu lu wér la. waaw bi ñu ko yëgee moom métti na ci ñun trop moom ndax seex bi wax dëgg yàlla moom jàmbaar la woon ci yoonu murit te màggal nag dina ko a jooy quoi waaw waaye borom moom mu def dafa gën na kuy julli rek metti na la waxuma laa ñun murit yi a wax dëgg yàlla ndax xale metti na trop mais nag yàlla moom moomu nu ko neexee mooy defee noonu nu ko neex te lii moo gën ndax coowu taawam yi yëpp xam nga gis nga ni mu fa deme kon nag tey bu ñëw yàlla dikk koy def lii Cheikh Saliou dugal loxo. waaw Cheikh Béthio da nekk na suñu sëriñ koo xamante ni wax dëgg yàlla liggéeyam ci kenn ku ne xam na ko ah yàlla def na nag yàlla moom jaam ak pexem yàlla ak dogalam mais nag Cheikh Béthio noonu dong la mën a mel parce que liñ ko bëgg a tegee mënu koo mënu koo demee. nekk na koo xamante ni xuus na ci yoonu murit feeñ na ci te Serigne Saliou defal na ko loo xamante ni yaakaar moom kese la ko defal kenn àdduna mun mun koo natable loo mën di waxit xam nga ne Cheikh Béthio Cheikh Béthio mu Serigne kon yàlla def na ne xañ na wuy ji na boromam mais ci anam yëpp gën a te surtout weeru koor bi wane na boppam ndax benn fan ci weeru koor nga wuy sa borom foofu xel yi dal na ci xañ na nga lan ko bëgg a teg loolu la suñu borom nanguwut loolu la Serigne saaliw mi nga xam ne moom la yaakaar moom la nanguwut. xew-xew bi moom xanaa métti rek vraiment niñ ko dundee mooy biñ ko yëgee moom wax dëgg yàlla dañoo am tiis bu baax a baax ndax jàmbaar ju mel ni Cheikh Béthio ak ni mu mel ci yoonu murit ak liggéey bi muy liggéey ci yoonu murit wax dëgg yàlla képp koo xamante ne si taalibe nga doon murit buñ la yëgalee décédé moom wax dëgg yàlla da nga ci am méttiitu xol wax dëgg yàlla da ko yëg te da nga da nga ko méttiitlu bu baax a baax a baax a baax eh, jàpp nañ ne daal wax dëgg yàlla def noo métti lool lool lool lool lool lool marqué nañu it bu baax a baax a baax a baax